tànn na leader Thiès mi ngi ci ginnaaw président Abdoulaye Dièye parce que muy suba muy ngoon muy guddi muy bëccëg dafa mel ni Thiès benn leader rek moo fi nekk di def lu baax nag dem na ba képp koo mën ki dégg ci Thiès ñu ni am na lu baax lu ñuy def wala lu ñuy joxe dañ ñaan xanaa président Abdoulaye Dièye ñun nag askanu Thiès moo ñu ñor képp kuy defal lu baax askanu Thiès ñu bokk dëkk Thiès

bok ci bir Benno bok yakar ñu ñew andando ak yow su ko defee ñu liggéey jema réussir parrainage bi ben mais ñaar suñu àggee ci élection yi ñu mën jox suñu candidat le président Amadou Ba ndam di ko premier man kuma andal da ngay gagner parce que je suis un gagnant ma ni man ku ma àndal da ngay gagné parce que du dellu gannaaw dama bokk foo xam ne lu ñu wax du fu ñu teg seen tànk foofu la du ñu dugg ci tappale du ñu dugg ci caaxaan kon boog gëm naa ne Ablaye waroon am gaynde te tubaab nee na qui se ressemble s'assemble kon Ablaye DG man gis na koo xam ne

ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax mooy suñu kilifa moo ñu wanale ak Abdoulaye Dieye ba tey ñu seq ak moom teraanga bu nekk fii ci biir Sénégal di wax ne rek jàpp leen ko am ngeen doom ju baax am ngeen doom ju yaru am ngeen doom ju am njëriñ na ko waa Thiès jàpp ñun de waa Sénégal lay wax sax ñun Abdoulaye Dieye rek la ñuy wër su ngeen ko jàppul nag ñun ñu jël ko kon nag Thiès jàpp leen jàpp leen le président Ablaye Dièye su ngeen ko jàppul ñun dinañ ko jël merci beaucoup loolu laa bëgg a dégg jërë ngeen jëf loolu laa bëgg a dégg jërë ngeen jëf kontaan nañ te ku ko dimbalee mu jàppale njabootam mu tàllal la loxo loolu la DG Ablaye Dièye def moo tax mouvement bi ni ko yow la fas yéene ànd ak moom dem ci parrainage yi gagné département yi nga xam ni yépp fa la mouvement bi nekk daal di jël parrainage bi yépp ak au soir du 24 février lépp li nga xam ni moom mooy victoire ñu teg ko ci loxo Ablaye Dieye mu teg ko ci loxo président ñun nag Benno Bokk Yaakaar bu Thiès ñun ñëpp ñun ñoo taxaw nii Ablaye Diouf nii lañ soxla suñu kanam pour mu diriger Benno Bokk Yaakaar ndax ñu mën a am ndam loolu nag buñ ko defee dañ koo teg fu wóor parce que tubaab day wax ni équipe ki gañ kenn du ko changé mais dañoo gis ni bañ fi nekkee 2012 ba léegi ak yenn nit ñi li ñu gagné ci élection bariwul ñu gis Ablaye élection locale yi mu wan ñu boppam moom rek ak coalition Siggi jot na ñu am dix mille et quelques benn commune loolu yaakaar naa ni du ay caaxaan. boo leen di pare ngeen xool fiche bi ñuy bind seen tur bu xam ne fiche boobu fiche Amadou Ba te Ablaye Gueye moo fa yóbbu loolu loolu il faut ngeen def ci attention bu baax a am na ñu bëri ñu jël ay parrainage ci turu Ablaye Gueye parce que nag Thiès Ablaye Gueye moo fi saxe xam am na ñoo xamante ne ñu ngi fii ci majorité présidentielle turu Abdoulaye Dièye la ñuy doxantoo pour mën a matal seen parrainage kon li am mooy ñi nekk opposition loolu sax ñoo gën a tax may wax bu ñu woonul seen bopp nañ dem toog li ngeen ci parrainage yi président Abdoulaye Dièye ci ñëw léegi bu defee lancement au niveau de Thiès am na ñetti commune est ouest nord jot nañ cee waxtaan au niveau de la commune ouest notre frère Théodore dina woo responsable yi nekk ci ginnaaw Ablaye yépp nekk foofu waxtaan ak ñoom jox leen fiche yi bu demee commune nord notre frère bi doon wax fii léegi njagawaar dina de foofu joxe fiche yi buñ demee commune est incha allah ña fa nekk yépp xam naa seen numéro man maa leen war a woote naa leen woo Nous sommes aussi là, on décide 1 million de signatures. On compte sur le président Abdoulaye pour remobiliser les troupes de Thiès, pour redynamiser les troupes de Thiès. Xam nga lu tax parce que mën na ko xam nga lu tax parce que am na jaar-jaar xam nga lu tax parce que am na lu fi def ñun nekk Benno Bokk Yaakaar Ablaye ji jógagul tey bu jógee ñëw ñu ni ko yow la kon ñun xam nañu fi mu jaar ba agsi fii mu agsi xam nañu li mu mënal coalition li ñuy wax nag mooy lenn mooy Benno Bokk Yaakaar bu Thiès ñun ñi ko samp dox ci def ci liggéey ci

Écoutez-moi bien. La politique, ce n'est que deux choses. Le nombre et le résultat. Et pour le nombre, nous avons en face de nous, dès maintenant, les parrainages. Parrainage nous moi, nous jox coefficient bi nga xam en bala ñoo dem 25 février 2024 nous xam ñun ñaata nous nous toll suñu poids te yolo, yaakaar buñ ko défé d'une manière sérieuse d'une manière sincère et d'une manière courageuse surtout lolu nak maa ngi ci wo ndaw ñi ndaw ñi dama bëgg à partir de lundi ngeen ñëw ñu dajé à la permanence ñu tas parrainage yi dugg ci kër yi wax ak jigéen ñi ànd cee jigéen ñi sax

moo tax projet pour réélire notre candidat Amadou parce que je pense que l'objectif c'est de gagner les élections de 2024 donc je si les partis alliés yi nga xamante mais rafetlu ñi nga dañoo plateforme 2024 tey nag ñu jëm ci TP 2024 Thiès Parène Amadou Ba mais le Sénégal Parène Amadou Ba pour 2024. damaa ngi leen remercier bu baax si engagement bi tey toutes les régions du Sénégal sont représentées point focaux yi ñu si élection la ba lancé des pétitions ñëpp ñëw nañ teew parce que bi ñu paree pétition yi ñoom ñëpp dañoo ñëw engagé wu ne que dinañ ñëw continuer choix bi nga xamante ni moom le président Macky Sall def parce que dañoo amoon yéene président Macky Sall nekk candidat ba ñu dem wutali ko un million de signatures ñoom nag ñu ne un million de signatures yooyu ñun dañ koy traduire en parrainage te loolu bi ñu ko waxee jël ko jël te jàpp naa ni ñun rek président mënoon na yem ci président Ablaye Dièye pour wut ay parrainage ndax pétition bi mën na refléter nombre de voix bi nga xamante ni moom la ñuy laaj ci parrainage donc nag tey ku jël engagement taxaw ni damay ànd ak yow ci loolu di ko gëm ndax ba mu méttee kenn ñemewul woon taxaw wax la candidature du président Macky Sall la plateforme Sigi ak Macky ñoo taxaw dugg ci gox yi dugg si kër yi waxtaan ak ñoom ba ñu am plus de 1 million de signatures et c'est 1 million de signatures yooyu tey je pense que ni moom la waroon jël rek reverser ko au niveau du ministère de l'intérieur wani président Macky notre candidat Amadou Ba pare na ko ba pare lancement bi nag ñëpp xam nañ ko mooy naka la ñuy demee si parrainage yan yoon la ñuy teg pour parrainer Thiès nag dafa bëri ay ñoo xamante ni xam naa dañuy gëmm wala ñuy tëdd di gént ndax fan rek dégg naa ku taxaw ni moom amagum na trente mille signatures te parrainage ba ñu commencé matagul sax une semaine donc caaxaan bi dañ ko bàyyi tey wax nit ñi dëgg mais également tey def loo xamante ni c'est fiable parrainage du rek da ngay dem wuti benn base de données jël say fiches di remplir nit ñi da dem seeti leen waxtaan ñoom. convaincre leen ñu signer la parce que ku la signer moo lay voteel mais dem ken xamul lu ngeen jëlé parce que légui moom am base de données yomb na da ngay dem fay ken ñu la base de données ñi dëkk Thiès ñëpp nga la base de données ci xombal yëpp ngay remplir di remplir motax buñu leen ragalee nak ñuy jóg di yuuxu nan dañ ñoo ragale parce que am na nombre fay yoo nombre bi am fiable nombre bi am wóorul ñun nak ñu xam xam ni ñun dañu organiser nous avons le mouvement est très Je pense que 450 cellules. Cellules pour 30 personnes. Il y presque plus de 7 000 euh, personnes. Maintenant, il y a 16 400 personnes. Je pense que le papa, le Krakan, le Guy, le Zigel, on aura 70 000 pareils. seul le mouvement Siggil Jotna rek peut atteindre 70 000 signatures ici à Thiès waxuma la sama jambari, yi nga menjadi ñoo ànd ak man su sama frère Théo ah je pense que ni tey Thiès rek pare waxuma la sama jambari ini, ne coalition Benno Bokk Yaakaar nekk commune Thiès Est ñi nekk commune Thiès Nord ñi nekk commune Thiès Ouest donc je pense que ni tey bu leen kenn naan Ablaye Dieye moo ñu yónni parce que nag Thiès Ablaye Dieye moo leen saf ku bëgg ñu ànd ak yow da nga naan Ablaye Dieye moo a yónni bu ko defee ñu ne gaawal gaawal jox ma si yéen la ndax gis nañ Ablaye Dieye ni mu ñuy taxawoo gis nañ ni muy jàppale xale yi gis nañ ni muy jàppale santé gis nañ ni muy jàppale éducation parce que loolu mooy politique politique nit ki soo ko amulul njariñ du ànd ak yow nañu xam ni politique njariñ la président Macky Sall wax na ba tey nit mënoo moom moom nit ñi politique kenn defu ko pour am alal ñun ba ñuy am li ñuy am dañ ko am démb doog a ñëw dem politique dañu xam ne politique valeur Thiès mën a gagné les élections de 2024 ndax kat challenge la président Macky Sall li mu def Thiès 2012 ba léegi jox na Thiès li mu mënoon yëpp jox na Thiès nomination ministre jox na Thiès nomination DG jox na Thiès nomination PCA damay na fi ay chargé de mission lépp loo xamante ni euh, lu baax la président Macky Sall jëlee ko Thiès parce que tey jàpp naa ni Thiès jóge Dakar ñëw Thiès dafa mel ni nga jógee Yoff

léegi nag borom Thiès mooy Ablaye Dièye ndaxte liñ naan xale maa ko loolu nag yéen yéen a ko wax man waxuma ko parce que moi je n'aime pas parler de ma personne li ma bëgg mooy jëf ñu gis te jàpp naa ni jëf naa fi loo xamante ni kenn mënul taxaw sama wet ne yaay borom Thiès ni yow yaa bëgg defar Thiès man nag Thiessois yi maa ngi leen di wax sama taxawaay fii ma taxaw mooy taxawaay premier ministre Amadou Ba mooy taxawaay premier ministre président Macky Sall donc Thiessois am am leen confiance ci seen doom am leen confiance ci ki nga xamante ni mooy Ablaye Dièye xam lépp lu mu am Thiès la koy jox lépp lu mu am waa Thiès la koy bokkal su ma yokkoo Thiès yokk parce que man wutuma leen lu dul yokkute Thiès donc ñu ngi leen di wax ni dañu àndandoo pare

Vous kenn dem wutali ma ay cadante yoo xamante ni gisoo ñi nga xamante ni la war a da nga taxaw ñu jox la cadante nga remplir ko jox ko signé loolu mooy parrainage bu fiable parce que ñun duñu naxante ñu nax kenn ñi fi naxaate nag dafa bari les candidats fantômes yu jóge faneen ñëw fii bëgg am ñoo xam ne ñu ngi leen di représenté ñoom dañ leen di nax fii parrainage yi fi am mooy benn Bokk Yaakaar mooy Thiès parrainé pour Amadou Ba ku bëgg ku ku bëgg am parrainage boo jaara si Ablaye Dieye doo ko am te Ablaye Dieye ànd na kenn ku dul ko jaay si laaj avec le président Macky la Sénégal si continuité émergence loolu nag kenn ko arrêté man mii xam naa ci dara responsabilité yi ma am xam naa ne président Macky Sall vision bu am yéen jeunesse bi leen koy wax du ma leen je je ne dama leen di wax loolu ëllëg da ngay teg seen bët d'ici deux mille trente cinq di dem bitim réew sénégalais du dem mbëkk wax ngeen toog bañ a yàkkam xam ni pétrole bi ak gaz bii di génn président Macky Sall am pàcc bu am solo bu ci jox ndaw yi donc te ndaw bu amee liggéey ay wéyuuram seen xel day dal jigéen ñi su boobaa seen xel dina dal donc nag ñu ngi leen wax ni il faut parrainer notre candidat Abdouba, Ba mi nga xamante ni tey moom moo war a continuer liggéey bi nga xamante ni président Macky Sall am na ko si son plan Sénégal émergent donc j'appelle encore à l'unité j'appelle à la mutualisation des forces nañu àndandoo liggéey di woo nag tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar ñu wàcc ci terrain bi parce que nag politique doo xaar ba élection ñëw nga doog a wàcc ci terrain bi Abdoulaye Dieng moom ku ko xam xam ni homme de terrain la sama jiin laay sol sama training dem wax ak lii.